asalaamualeykum mbokki Sénégal tey dañu ñëwoon fii ci Touba président Macky Sall yónni ñu fi ci xalif général euh, des Mourides mun taxa yàlla na fi yàgg te wér comme ni président fan yi euh, di yónnee it ay délégation ci kër yi yu mag yi ñu waxtaan ak euh, kilifa diine yi pour que Euh, euh, li nga xam ne moom la jël ci ay matuwaay bi nga xam ne feebar bi ñuy wax coronavirus dugg na ci réew mi ba léegi euh, matuwaay yooyu nit ñi comprendre ko et nit ñi d'accord ci nga xam ne suba incha allah ñun ñëpp bu ñu àndee dégg li nga xam ne moom la état bi wax dégg li nga xam ne moom la kër docteur yi wax incha allah feebar bi dina mën a yem ba nga xam ne dina mën a génn suñu réew président bi fi feebar bi duggee léegi ñëpp dégg nañu mesure yi nga xam ne moom la jël askan wi yëpp rafetlu ko mesure yooyu bi ci njëkk mooy li mu interdire jaxasoo bi bu bari bi parce que feebar la boo xam ne day wàllaate mu ñu bëgg nag fii mu ñu yónni woon di Touba tey ñu nekk fi ñu taxaw fii ci Touba wax ne feebar boobu mi ngi ci biir réew mi feebar boobu du loo xam ne lu ñuy laame-laame la wala di ci am ñaari xel mi ngi ci biir réew mi ñi ko am xam nañ leen docteur docteur mi ngi leen di faj alhamdulilah am na ñu ci tane wante li ñuy ñaan mooy mu yem propagation yem fi mu yem ah ñi feebaroon mën a tane ba dellu ci seen njaboot président nag yónni woon ma fii ci Euh, xalif général kullu murit sëñ Muntaxa Mbàkke euh, ibn sëñ Mouhamadou Bachir euh, nekk yonent boo xam ne d'abord yonente ngërëm la ndax kenn fàttaliwul déjà kenn fàttewul bërki démb ah message bi nga xam ne sëñ Muntaxa joxe na ko jël lu takku it teg ko ci loxo président teg ko ci loxo état bi ne mooy contribution pour askan wi ci faj bi nga xam ne moom la ñuy faj askan wi loolu it président rafetlu ko teg ko ci loxo kër docteur yi ah, ñu koy utiliser loolu président mi ko ci remercier ñuy remercier it ah, ah, sëñ Muntaxa ndax sëñ Muntaxa wone na li nga xam ne moom la kilifa gi mu doon di kilifa kullu murit di kilifa diine ci réew mi wane na li nga xam ne moom la moom la moom la yelloo mooy mi ngi ci ñaan wante nee na fagaru fagaru boobu bi ñuy demee tey cee jumaa ja moom ci boppam produit yi nga xam ne moom la ñuy euh, fagaroo ci mbiri euh, solution euh, hydroalcoolique pré moom ci boppam sëñ Mountakha jëfandikoo na ko wax na ko nit ñi di jëfandikoo bi loolu passé it nee na jaxasoo bi ak dem dikk bi ah lu dul farata nañu ko jéem a wàññi loolu message am ñëpp dégg nañ ko euh, defe na sëñ Afe Niang moo délivré message bi ci jumaa ji loolu ñoo ngi koy rafetlu ci turu président incha allah fan yii di ñëw dinañu tam président dina yónnee ci kër yëpp. pour que nit ñi comprendre ne réew mi fii mu nekk dafa tollu ci ci guerre ak coronavirus et que kilifa yu mag yi it ku ci nekk euh, li nga war a def yëpp ci wetu état bi ci wetu euh, euh, kër docteur yi soo nga jàppale ñu ci incha allah ba nga xam ne feebar bi dina mën a yem fi mu yem génn réew mi ñi nga xam ne. xawoon na leen a dab ñu tane ci jàmm a ah, réew mi continuer doxam vers l'émergence jërë ngeen jëf merci